The National Assembly member for Banjul North constituency during the adjournment debate on Friday the 4th of October 2019 called on the government to invest in fishing sector. The member for Banjul North Usman Sila asked officials what is stopping the government from purchasing fishing trawlers and setting up a company. Uh, Mamjibilolo Nekalo Amsolo Tarab Majola Bena little scenario one few weeks back as I was traveling to Bara. I was opportune to be in the same uh, to cross uh, on the same lane inside the ferry with some uh, fishermen uh, ñoom nag buñ doon ñëw si biir géej bi ñu gis benn boat bi nga xamante is a fishing boat for the Europeans I could see anga bi nga xamante ne la Gambian fishermen yi amoon buñ gisee the boat meaning ñoom nag si seen wax um, dañ feel ne government bi nekkoon di leen support comme nuñ leen war support because ñu ne ñoom rek rek rek luñ dee nappa si jën su doon government bi mu ngi koo jënda si ñoom ah Diko ko invest dina doon ah, jur lu bari rather than di jël suñ ah, part of suñ ah, géej bi di ko jox ñi nga xamante ne mooy the west or the Europeans pour di ñëw di jël jeen which is causing a lot of hardship to the Gambian economy mu mel ni ki nga xamante ne mooy Banjul North National Assembly di tamit dafa mel ni it's so coincident moom tamit kàddu yooyu la moo jaarale fii neen waaw comme li nga ko waxee rek defe naa ne loola buñ bàyyi xel fan yële ñu génn gunjuur tamit ñi nga xam ne ñooy nappakat ya mm-hmm. doon jooytu lu nu mel mm-hmm. Banjul North seen National Assembly member bi gaaral na ci ay kàddum ne nappkat yi mhm. soxla nañ ñi nga xam ne mooy ndimbal te ñi ci war a jàpp mooy nguur gi loolu ñu ngi xaar nguur gi ñu jël ci jéego jël ci matuwaay yu am solo